tey Sénégal de football euh, demi-finale di daje ak équipe bi nga xamante ni ñëpp ko euh, ràññee ci wàllu xarañteem mi Burkina Faso moom it qualifié na demi-finale euh, mu muy mu des leen li nga xamante ni mooy finale te ñoom ñaar ñëpp di ko xëccoo mi Sénégal ak Burkina tey naka nga gisee match boobu. waaw match bi moom ni ma ko gisee moo ne buñ si nekkee rek duñu am jafe-jafe quoi l'essentiel mooy que ñu bañ a wàcc de trop taxaw système défensif. nañ génn nañ football nañ joxe lu ñu am parce que joueurs yi ñu am vraiment xam naa ne bëri nañ technique macha allah am nañ technique trop waaw ku si mel ni booy Pape Gueye et puis Sadio Mané aussi euh, ni muy aussi baax na trop par rapport ak gis nga comme match bii ni passé avance yu mu doon def retrait yu mu doon def bu fekkoon ne ñëpp dañ doon nekk au rendez-vous ni kon équipe boobu noonu na doon jël euh, but yu bari si premier mi-temps bi. mais est-ce que bi moom mooy téye équipe bi à chaque fois. waaw Aliou Cissé Aliou Cissé moom genre euh, affaire coaching man bon sama xel bëri kii yu si noonu noonu quoi mais dama yaakaar ne moom day def lu dal xelam rek lu dal xelam rek lay def quoi parce que tamit euh, moom aussi euh, le fait que mu dem ba foofu noon gañe moo ko yital la fait que mu nekk Sénégalais ñu ngi koy critiquer nag ñu ngi koy critiquer de trop mais nag moom yaakaar naa ne daal gagné moo ko yital quoi. naka nga gisee Gana parce que euh, sénégalais yi bay nañu ren gis ñu ko ci kaan bi est-ce que mën xam tey euh, euh, tey boo ko doon wax tey ban message nga koy jàllale. waaw effectivement message yooyu noonu ñu ngi dal yu bëri ci réseaux sociaux yi parce que day nañ lu muy joxe biir France par rapport ak biir Sénégal du benn. ñeneen ñi ñu ngi demandé beneen boobu Pape Matar Sarr je pense milieu terrain boobu noonu ñu ngi koy demandé ñeneen ñi nga xam ne Gana nañ ko teg ban afin que mu mën a xam boppam ak yooyu noonu mais bon. Euh, expérience aussi dafa baax si compétition parce que Ghana yàgg na di football yàgg na nekk na si club bu mag aussi te yàgg na di dajeek ay équipes yu mag compétition aussi day laaj expérience te ku ci mel ni gaana aussi dañ koy laaj xanaa di ko gën a ñaaxaar rek ne ko mu def fulaak fayda xam nga comme ni nga ko xamee woon affaire yooyu noonu mu gën a indi xadar aussi tamit ah, tey jii ah, naka nga gisee équipe nationale tey ban ba ban score nga yaakaar ni tey yaakaar nga ni Sénégal mën na ko gañeek ah, Burkina Faso non score bi moom man mun ma ci wax dara mais maanaam sa gis-gis kay sama gis-gis bon en tout cas moom xam naa ne dinañ gagné moom su neexee yàlla. Ah, ñaata la ñuy gagné. 2 match bi match bu ouvert la quoi parce que Sénégal équipe boo xamante ne la ñëpp dañ ko jàppee favori e donc ñëpp koy xaar au début seen euh, ni ñu entamé euh, CAN bi bon dalul xel koi si Sénégalais yi ak ñëpp ñu leen doon xaar mais au finish euh, gis nañ ne commencé nañ wane seen vrai visage. tu vois au début sànq dama déglu rajo ma dégg mu am ku wax mu ne mu am ku wax ne Sénégal euh, dafa doon commencé gaynde jeexale muus mais bii par dafa commencé muus nar a jeexale gaynde yaa ngi dégg wax boobu donc ça veut tout dire donc ñun ñëpp am nañ yaakaar instant bi parce que xam nga on est en demi-finale et demi-finale benn affaire rek a des benn point ñu dem finale te gëm naa ne cette fois ci nii xam nga dinañ yegg final parce que Burkina c'est prenable équipe boo xamante la ñoo ko mën. d'accord équipe bi nga xamante la ñoo ko mën mais tamit demi final la aussi ku nekk day bëgg dem final tey jii ah, tey la nga yaakaar ni tey jii nii gaynde bi nga ko defee Lions yi nañu jaar ci kaw Burkina Faso gagné ko dem jëli ko bi parce que ñun ñëpp Sénégalais la ñaa ah, soxla nañu étoile suñu maillot waaw tey na ban message ngay jàllale lépp nga xamante ni ah, ñi nga xamante ni nañ la dégg pour nga wax loolu. bon li ñu war a def lenn la lu lu simple mooy que ne ñun ñoo gën a technique Burkina en plus suñuy joueurs yi ñoo gën a nekk ay joueurs yoo xam ne ñun nit ñuy gën a xam yaa ngi dégg c'est des joueurs yoo xam ne ñoom ñëpp c'est des favoris c'est des c'est des euh, comment dirais-je titulaires ci seen club yi donc euh, Burkina ñi fa nekk star bëriwul quoi waaw donc euh, pour man Sénégal xam nga li mu war a def leen la mooy utiliser technique am ak xam nga lan arme des la lool xam nga lan mooy lan mooy problème mu Sénégal ñun ñëpp dañ koy wax ah. Sénégal lan mooy seen problème am na technique bee ngi fii xam nga dañ leen di xaar de trop mais xam nga lan mooy seen problème waaw dafa des des na arme mi dafa xaw des. te lan nga yaakaar que ne lan moom war a def pour loolu mën a ñëwaat. kaay teg fa seen bakkan teg gën ko bëgg gaa yi bu ñu ko gënee bëgg gaa yi jeex na parce que technique bee ngi fii li si des nag xam nga lan la affaire de góor la affaire de góor la foog muy metti naka nga gisee kii tigi ah, bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci kaw gaana Gueye nee nañ Gana Gueye du joxe ah. comme ni mu joxe ah, man maa njëkk wax loolu ah. man maa njëkk wax loolu man dama gis ne Gana vraiment xam nga man je comprends pas quoi football bi muy football dafa sedd trop quoi. daan na gën a lii perte de balle yi dafa bëri coup franc yi moom muy jël responsabilité pour dóor ko ba pare nu ko neex la koy dóoree. je comprends pas un professionnel boo xam ne vraiment yow nga nekk si club bu gën a mag presque si club yi xam nga titulaire en même temps ngay def yoo xamante ne je comprends pas quoi man man loolu daf may jaaxal booy à la fin dama mel ni comme équipe nationale dañ ko jàppee kii du ko sànni xeer mais bon sama avis laa joxe benn instant parce que tamit lu ñëpp wax dëgg la ñëpp a seetlu loolu quoi na def comme Sadio Mané man xam nga lu may wax keroog ma ne Sadio Mané dañ ko war a protéger mais Sadio Mané c'est quelqu'un boo xamante ne Sadio yow mooy leader équipe bi mais Sadio Mané dafay rayante day jël risque yoo xamante ne mun na ko yàqal sax carrière loolu yëpp xam nax lan maillot Sénégal bi na yi jël ci moom euh, comment exemple quoi bu ñu jëlee ci moom exemple je te jure équipe bu ñu taxal gagné la même bu nekkee équipe bee ñu mën dañ koy gagné. mais tey euh, boo doon joxe score Sénégal ñaar nga yaakaar ne moo ñu war a gagné. bële paase sama benn xarit mu tiit quoi ma ne ko la mooy sa pronostic mu ne wax mu ne ma lan mooy sa ma ne ko ah sama pronostic 2-0 la 2-0 3-1 mooy 2-0 je crois léegi bii paa nag yéen a ma laaj bu ko mën pronostiqué. mais xam naa ne match Burkina damay delluwaat ci 2-0 yi. moom nga yaakaar gëm naa ko. pourquoi boo laaj ba boo yaa ba boo laaj rek ne ko est-ce que mu ne 2-0. bon ñëpp ko yëgandoo affaire yi quoi ñëpp ko sentirandoo te gi nga ah doy na waar de en tout cas mais xam naa ne moom yàlla na dafa sutura quoi. incha yàlla na seet sutura ak Burkina du musul yomb nag mais bii du yomb mais yàlla na seet sutura parce que lu jot rek yomb yàgg nañ ko xaar. et puis boo xoolee suñu parcours fu ñu jaar parcours bu ñu jaar rek sa ça veut dire beaucoup de war na mën a tax xel yi daal depuis euh, bi ñu defee ko tirage bi ñu nekk si poule boo xamante ne poule non poule bu xaw a tane quoi ñoo ñoo waaw ñoo fa nekkoon kii ba ñuy yegg dem dem ba yegg si fii qualifié yeggaat fii dasewaat ay Burkina pour moo ñu téye pour ñu dem final jàngat la quoi. li ma ni ma gisee match bi mooy ñun sénégalais yëpp. nañ mobiliser wu derrière Lions yi jëm leen a encourager ba pare tey euh, di encourager le coach Aliou Cissé yaakaar nañ ni dina def un bon choix te équipe bi yàgg gëm nañ ni dina dem final te gëm nañ ni euh, mën nañoo gagné coupe bi daal incha allahu rabi. tey est ce que euh, loo yaakaar kañ tey gaynde a joxe pour gagné Burkina Faso parce que demi final du yomb benn match bi nga xamante ne boo gagné da nga dem final te final équipe bu nekk bëgg nga koo dem. waaw mais man li ma leen di conseillé rek mooy dem ba jeex rek. parce que affaire bi moom fi ñu toll nii dama yaakaar ni isil nawetaan lañ war a andi mooy nañ fa bàyyi lépp xadar bi waaw ndax bu ñu xoolee exemple lu Cheikhou Kouyaté ni muy ni muy défoncé woo ak ak maane ak euh, Kalidou le capitaine ni muy défoncé woo di nga xam ne équipe bi bu nekkee andi nañ jom andi fula andi fayda ak ñu am fibre patriotique bu ñu ko amee rek gëm naa ni ndam li war naa mën a ñëw Sénégal bu soobee yàlla. Euh, Gana gee coow li bari na ren nee nañ euh, joxeegul quoi lu mu war a joxe ci kan bi. waaw mais loolu dama koy wax sax ndax euh, Gana yaakaar naa ne moom mooy métronome équipe bi moom bu tourné rek équipe bi dina dem. te depuis ñi ngi xool ne bi kan bi commencé ba léegi ni mu war a doxee doxewu ko quoi xëy na critique yi nga xam ne nekk na ci moom jot na ci ba tey jii nii moom bu nekkee fonctionné na rek parce que équipe foog naa entre jeu bi mooy amu équipe. te bu entre-jeu bi doxee alimentation bi di dox défenseurs yi di jox milieu terrain bi milieu terrain yi di alimenter attaque bi dina dox mais bu nekkee bal yi day jugee ci défense bi dem directement ci attaquant yi attaquant yi dañuy sonte duñu am dara kon donc suñu entre-jeu bi nañ fexe mu am mu am tonalité te mu am présence bu amee présence rek gëm naa ne burkinabé yi mën nañ leen a gagné. ba pare tamit gannaaw bal arrêté yi war nañ cee wax waaw man bal arrêté it aussi yaakaar naa ni euh, war nañoo mën a xool nuñ koy disiyee quoi ñu ñu koy jox euh, Bouna Sarr mu di ko dóor quoi tey parce que moom spécialiste la la matière ñu di ko ko jox quoi li ci des nag moom mooy fibre patriotique daal lañ leen di wax nañ ko am. xadar 2002 waaw. waaw xadar bi daal nañ ñëw rek te gëm naa ni booy dinañ leen galvaniser ba xadar gi daal dinañ ko andi bu ñu xade eh, andee xadar daal équipe bi war naa mën a am résultat bu baax tey quoi. di leen sant di leen gërëm ndax ñun ñii ñi ngi préparé man sama billet laa yore nii pour incha allahu rabi bu gars yi gagné dama war dem Cameroun leen di ñaax kon ñu leen ci ndax bëgg nañoo dem Cameroun. du yomb mais ndam rek Burkina Faso moom amul ragal dëgg yàlla moom Burkina Faso moom warul genn senegal waaw dëgg yàlla moom man victoire rek laa gis waaw. aussi tamit équipe bi presque ñëpp ñu ngi koy xaar dem nañ quart de finale bu nekk dem demi finale bu nekk ba ci finale ah, tey équipe bi ñëpp di ko yaakaaree pour mu andi coupe bi ah, tey ban message nga xam ne boo ko jàllalee gaynde war nañ ko mën a dégg ba andil coupe bi foofu fii incha allah. man kay benn message rek laa am lu may jàllale. vraiment nañu nañu góorgóorlu rek indi coupe bi rek loolu rek mooy sama message dëgg yàlla parce que ñun moom kii bi combativité bi moo des loolu rek moo des. mais lépp waaw waaw combativité rek moo des. am ne gardien le meilleur gardien du monde ñoom ñoo ko yor l'un des meilleures défenses du monde ñoom ñoo ko yor l'un des meilleurs di du terrain du monde ñoom ñoo ko yor ah ñoom l'un des meilleurs attaquants du monde ñu ngi si eh, lan moo des waat. ah man loolu rek laa mun a wax. comme nga gisee naka nga gisee Gana Gueye parce que sénégalais yi bari ñu ngi koy critiquer naan li muy def Paris di def Sénégal ci CAN bi. ñu ne. waaw Gana Gueye yi ñu ngi koy lu bari ne ah, li muy jouer Paris di ko jouer Sénégal ren ci CAN bi naka nga ko gisee. waaw loolu day am mais critique tam baax na ci. baax na ci parce que da koy yokk ñëpp xam na ne Gana Gueye caaxaan moom yóbbu ko Paris. waaw waaw waaw mais critique moom du ñak moom mais critique moom dalay yokk rek man loolu mun na nekk na ñaari match ñetti match doo gis dara mais nga gisawaati mais Gana Gueye moom kenn mënu ko wax waaye du du grand joueur loolu moom man anduma ci parce que caaxaan moom du la indi Paris Saint-Germain instant yi nii. Sénégalais moo gaaw a doylu xol bi doyloo ji gaaw a nekk comprendre nga baax li ma la nii te Cameroun bi ñu bi di organiser bi yorul équipe boo xamante ne techniquement dafa war a gagné mais xadar lay demee da lay tamponné nangu bi contre la dugal la. ba pare Cameroun dañuy def ay ay passe ay passe vingt mètres ñun ñaari deux deux passe trois passe nga perdre bal bi après nga daanu wala nga daw fakastalu jour bi muy coup franc yooyu dañ koy éviter. da nga yaakaar ne yi àndee xadar bi rek ba mun nañoo jëli. waaw bu ñu àndee xadar bi jël coupe bi lu leer laa wax nii même naar yi boo leen di gagné na nga leen di gagné da nga leen di njëkk ci seytaan yi parce que boo xoolee bu à l'époque football bu njëkk ba boo xoolee championnat yu njëkk ya lu mel ni Milan AC ay Marseille Marseille lu mu daan jëli coupe Milan AC lu mu aussi tamit ñu gis ne ah Sadio Mané mooy suñu leader comme moom mi nga xamante moom mooy génne guerre fan yi est-ce yoon ne joueur yëpp war a jël exemple ci moom ak Cheikh Kouyaté. na ko jaral la muy am fële million milliards yi mu am wala millions mu am ko mu jël ko teg ko fële porter affaire bi xam ne lii sens la boo xam ne bu ñu rëccee duñu ko gaaw a jàppaan comprendre baax li ma ne parce que boo amee calcul du dem match tey bi boobu man juddoogu mi juddooguloo dafa yàgg ah oui dafa yàgg dafa yàgg dafa yàgg. tey lan ngay ah, ñaax Gana Gueye. Euh, Gana Gueye li ma koy ñaax mooy muy récupérer bal yi. moom doxul ah. non doxagul di ko récupérer ba pare buy paas parce que gan may xool bu amee trois ballons yi mu yor day ñaari paas euh, paas bi def du baax paas bi baaxul. tey bu tey euh, boo ko doon sànni message lan nga xëy su ma ko doon su ma ko su ma ko doon coaché tey dama naan ko rek gis rek di for bal bi. di ko récupérer di passe-passe bu leer ba pare di dem di bale terrain bi gauche droite. voilà xanaa da waaw waaw dar naa ko def waaw. <laughs> est-ce que ñaar lay gis tey. bon bëgguma foofu dox lu dul dëgg nag. mais xam naa daal li ma gëm tey li nga jàpp ma gëm tey daal xam naa ne bu ñu yàlla dogalee bu di dimbale bu ñu ba ñu dóor tey euh, Burkina ku Sénégal final dina la gagné.